xale yaa ngi doon def préparation mystique Siteu bu Diourbel at Bébé Gouy Gui Siteu bu Diourbel at Bébé ni suma juumut spécial la après grand Siteu bu Jurbel ak noonu ndeysaan saan bébé guy gi ak noonu postan la yor postan ku xam postan xam ne postan bii timis lañ koy dagg day toccal galaaj loolu ñu yàgg ànd ak xam nañ ko day xool yi fi mu nekk mu bàcc ko fa waaw ndeysaan Sika Mbaye xam nañ lii Sika Mbaye yàgg ànd ak xam nañ lii ndeysaan xam nañ lii. man ñaari xale yaa ngi noonu. Siteu bu Diourbel Siteu bu Diourbel la at euh, bébé guy gi. daan combat spécial la Siteu bu Jurbel Bébé Guy Gi xale yi ñu ngi bajantu daa mel ni dañoo sedd seddaay ko waral bajantu gi yëpp seddaay la Siteu bu Jurbel am na lum tàllal Guy Gi tàllal na ko ñoox na ko sa dëndu ngemb la xam nga përëguk ngemb dafa am ak dënduk ngemb ñoox na ko si dëndu ngemb la <laughs> da kaa ñoox si dëndu ngemb la waaw foofooy dënnu ngemb saan bu be arbitre ñi def présentation Siteu bu Diourbel at Bébé Gouy Gui fii si Wassare ah mun naa nekk de saan ndeysaan Siteu bu Diourbel a ngi noonu Bébé Gouy Gui a ngi noonu ndeysaan xale yaa ngi toj seen manque ya rek Siteu bu Jurbel ngi noonu Bébé Gouy Gui ngi noonu Bébé Gouy Gui nag numéro 2 la numéro 1 baa ngi ne toog ndeysaan soo xoolee Bébé Gouy dem na si kot si ba ma ngay ñëwaat ma ngay ñëwaat at baa ngi leen di xool niin nañ wala niinuñu at baa ngi leen xool ndax dañoo niin wala nii ñu taan bu Jurbel at Bébé Gouy Gui Siteu bu Jurbel at Bébé Gouy Gui mun nañoo wax ne combat spécial wala combat spécial baa ngi noonu Siteu bu Jurbel nag fa nga jóge daa sori Jurbel nga jóge Jurbel saan combat spécial sama xel dem na si sëñ Modou Niang ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm ta xaaree ko àjjana moom sëñ Modou Niang da daan def teel a ndugg teel a dem marché teel a ndugg teel taal teel a yàq nee na du bëgg xale yi guddee du bëgg amateur yi guddee sëñ Modou Niang yàlla na ko yàlla yërëm ta xaaree ko àjjana yàlla dee di nof saan espèce ñu bëgg a dem bari nañ ñu bëgg a dem Niger bari nañ saan guy gi siñoor a sitëb bu Jurbel at baa ngi wax ak ñoom li lamb nangoog li lamb bañ laaj na ay sisam ne ndax pare laaj na guy gi ndax pare nga laaj na Siteu na at bi sifflé na Siteu bu Diourbel guy gi eh, dañu ne bébé guy gi daw jàpp Siteu dóor esaan guy gi ak Siteu bu Diourbel ci tangi pombe Siteu bu Gourgué Siteu bu Diourbel at bébé guy gi saan arbitre dafa sible ñu ne runkum daje ñoom ñaar wala nga na bébé guy gi la saan saan bébé guy gi bébé guy gi siñoor a sita bu sita bu Saalum wala nga na sita bu Jurbel bébé guy gi siñoor a sita bu Saalum Eh, saan ñu ngi noonu saan soq noonu di jaayu fii day zongale wala soo xoolee Bébé Gouy da koy zongale wala Bébé Gouy gis nga da koy zongale wala eh, saan ñaari xale yaa ngi noonu dañoo jàpp def tekk taxaw jàpp nañ def tekk taxaw ñoom ñaar. zongale na wala zongale na wala zongale na ko mu bañ da kaa zongale mu langaan gis nga da kaa zongale mu langaan moom Siteu asaan ñaari xale yaa ngi noonu si géew gi ñaari xale yaa ngi noonu si géew gi ndeysaan dañ na pire ñu runkum daje ñoom ñaar bëtaat na ko mu bañ bët na ko bët ah war na ko ndomba war door na ko na door na ko mu julli guy daan na ko guy daan na daan na ko ndeysaan xoolal xoolal turandoo ba xoolal turandoo ba daraaga ndeysaan xoolal ma ma supporter ya xoolal ma supporter ya ma supporter ya ndeysaan ndeysaan guy gi ngi noonu waaw waaw fair play fair play